jërë ngeen jëf mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax a baax di leen wax ne tey nag ñoo ngi arène nationale bee passé ñoo ngi nga xamante ni nii mooy bi wasaare invité woon leen fa ñoom ñaar ci émission bi nga xamante ni moom la ñuy waaye yàlla dogal na li muy dogal mu ja mu taxawee ci ki nga xamante ni mooy Ouzin Production ñu koy nuyu di ko jaajëfal bu baax a baax di wax ne nag combat bi gannaaw ñoom ñaar bëggante woon nañ dëkkante nañ lu ne waxante nañ ko Euh, yàlla dogal na Ousin taxawal na komba bi dugal ko ci diggante ki nga xamante ni combat spécial ci ki nga xamante ni mooy Lac Dior ak ki nga xamante mooy Zëmb Parcelles Mbooloo mbokk yi li mooy combat spécial bi doxoon ci diggante euh, Daouda Chandis ak ki nga xamante ni mooy Mbacké Faye keroog gis nañ seen jàmmaarloo bi tàngoon na. neexoon na waxante nañ fa lépp loo xamante ni nekkoon nañ seen biir xol Ouzin na gis affaire bi ne du bàyyee noonu mu jàll gannaaw moom dafay nekk di jàppale xale yi di jàppale jeunes yi nga xamante ni gëj nañoo bëree yi nga xamante ni tam dañoo saf làmb wala xale yi nga xamante ni tam bu ñu jógee seen waa gox jóg mu ne neen combat bi gannaaw bëggante ngeen te gis naa ne ku leen ku leen ku leen faylu sax dingeen jëflante ñëw leen ma fay leen ngeen dugg ci bés bi neexal ko taayal ko ma bàyyi ñoom ñaar kan kan moo ci njëkk nuyoo ci yéen ñaar <laughs> dégg nga Mbacke nee na bàyyi njëkk nuyoo Mbacke nuyu naa la. maa ngi lay fay gannaaw bañ sant yàlla julli si yonent bi sant suñu ñaari waajur. Hmm. di sant parcelle bi ñu jege 1 ba 26. gox bi ñu dëkk hmm. di nuyu yëpp képp koo xam ne yaa ngi bëgg Mbacke rek maa ngi lay siyaar di sant suma waa dëkk waa ceeb waa Ngoy waa waa Jirnda waa Fatick Niodior maa ngi sant ñëpp daal hmm. waaw. keroog wala bàyyi ma ko sax mu nuyoo waaw jox ko mu nuyoo ba pare. daaw la. waaye fay nañ la bàyyi di la siyaar bu wér waaw di sant yàlla bu baax a baax a baax parce que dëgg la nit amul lu dul mbokkam teew suñu mbokk nga. Mm-hmm. parce que lii taxawal ko woon jafe won na teewul yaa ko taxawal kon sant yàlla bu baax a baax a baax di bëgg ñëpp di nuyu ñëpp nag di siyaar ñëpp bu baax a baax. Euh, bi nga bi nga fay jógee amoon nga yaakaar combat bi dina taxaw. waaw amoon na ci yaakaar nag amoon naa ci yaakaar tamit di la du la sant yow it di la gërëm yow lépp yow la quoi waaw bu demee combat bi taxaw di sant tamit promoteur bi Ousin di ko wax xam nga yàlla na ci am lu kawe njortam. waaw di sant ñëpp di sant sama sama adversaire moom mi bëgg ma moom mi jël ma xam nga maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm. maa ngi koy sant nii. waaw di ko sant di ko gërëm parce que man tamit damaa toogoon mënu ma woon bëre moom mu jël ma dama koy sant ci loolu. mais jël nga mbër mu weex. waaw baax na loolu yàggatul. la ngeen waxante yëpp est ce que loolu dina am dina am seen diggante yéen ñaar. Ouzin lu raw loolu dina am suñu diggante kii li mu foog amul kii bu dee sañ-sañ maa ko fuuf. parce que nag parce que nag dafa mel ni am na yeneen combat yu ndox sa diggante ak ñeneen mhm. mais nga bàyyi ñëpp ne daaw du nga bëgg. waaw parce que am na combat yu ma doon proposé mais combat yi arrangé mhm. kii moo ma arrangé instant kii moo nekk sama kanam le 17 juillet yàggul dañuy ñaan yàlla yàlla may ñu dara fekkee di ci woo sama mbokk yëpp képp koo xam ne yaa ngi béggee Mbàkke maa ngi lay woo nga ñëw jàpp si combat bi di sant suma xarit Jibi Gens bi mu àndal maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm waaw. sant teel na Daouda est-ce que keroog bi nga fa jógee amoon nga yaakaar combat bi dina taxaw sa digganteeg Mbacké Faye. sóoru ma ko woon sax sóoru ma la suite si lañ ma gars yi sonal ay appel ma jël ko mais baay ma woon sax xel. gaa yi tax nga jël ko. barki Mouhamed bàyyi ma ko woon sax xel. billaahi. mais est-ce que loolu tam du risque gaa yi tax nga jël ko est-ce que du risque. xam naa xam nga booy. xam naa maay man sama bopp laa xam xaw ma ko. mais est-ce que xam nga booy. non non jéem ma sax. lu ma sama bopp laa xam sama bopp laa gëm. xaw ma ko sax affaire bi. Hmm. xaw ma ko de. mais li ngeen doon waxante. est-ce que pare ngeen pour jëflante ko yéen ñaar. man daal en tout cas moom lu ma la mën a xamal mooy le 16 dinaa indi lu ma neex def lu ma saaf daan loolu yomb na de. noonu laa koy defee nag. am andi neex def lu la saf daan dem ñibbi xanaa kon kii day nalaw day gëm. xaw ma de xaw ma de moom moo xam ah. Mbacke kii li mu wax yomb na de. kii li mu andi fekk ko fi boo andee doole fekk ko fi boo andee fit fekk ko fi boo xeex fekk ko fi boo andee bëri fekk ko fi lu mu andi fekk ko fi. bari barke alxuraan kii maa ko mën aller ak maa ngi moom duñ benn sax. foo teg bokkuñu man xale laa damay entraîné damay liggéey barke alxuraan caaxaanuma damay entraîné kii day entraîné. moom itam day entraîné. non kii entraînement yi tax ñu doon wax entraîné wul loolu de. kii xoolal cardan mi kii cardan yi na bu yàgg. booy naa dafa mën kii seen tëdd fi la écrit sax dama koo bay faale kii man maa fi nekkul di dagg seen teg affaire bi affaire bii nii laa dàgg santewul seen tëdd fi lu écrit sax gëmuma ko sax bay gëm lii lii affaire bi pour ñi ay bàyyi ma waay wax da nga benn cës la bu sew kii du taxawee fii barki Cheikhul Khadim du taxaw kii kii du taxaw ragal nga laa la wax bu ñu waxee ngay xulli sa bët yi tappet nga ñeme woo dara ngay ne sa amul man bokkuma ak ma di ko doon bëreel de sa waay góor ji génn nga ñooñu ma doon ting yaa leen gën a nekk góor ji génn yow feeg nga dama lay tëddee fii fii waaw waaw noonu baax na noonu baax na noonu baax na xaamoo Ouzin moom mi nga xamante ni nii moo moo moo moo dox lii ba lii sotti. pour yow yaa ma dugg parcelle ma génn fa de. du ma duggaat parcelle benn benn laa ne par pes yow da ngaa wax rek di wax dama lay ndawtal fët fët. waaw may ñu tuuti Ouzin nuyu naa la. wax ak yow laa sax bëggul. waaw may leen promoteur bi may leen promoteur bi Ouzin nuyu naa la. waaw maa ngi lay fay Ouzin maa ngi lay fay di nuyu waa wasaare làmb yëpp di nuyu axlu làmb yëpp tamit. di nuyu di nuyu Daouda di nuyu ki nga xamante ni mooy Daouda Sandwich. lu fi def mbër def ko fi. voilà lu mu fi def ko fi. voilà may may ñu tuuti dangeen a nawloo seen équipe na ñëpp dajaloo may leen di nuyu Daouda Sandwich di nuyu ki nga xamante ni mooy Mbacke Faye bon di leen am mbégte si ñoom bu baax. combat bi nag comme ni ko waxee Ouzin taxaw nag mais Ouzin taxawlu ko ñoom ñoo taxawal seen bopp seen combat. parce que émission bi ñu def mu wër àdduna ba ku nekk di ñuy wax ku nekk naan combat bi combat bi. Mm-hmm. yàlla dogal ni mu sottee ci man. Mm-hmm. ñoom ñoo tëgg seen combat. Mm-hmm. di ñaan yàlla nag avant tout ñu jiital fair play. parce que loolu lañ fi am amuñu fi leneen. kii meer gañ ku nekk nee nga yaay daan sa morom ni ko père di waxee ñaari dugg waay benn yi génn. ku yàlla may ndam nga xam ni loolu la. mais nag mais nag mais nag dama gis euh, dër bi euh, jàmm gën parcelle. terrain dafa xew yow nga ñëw dolliwaat ko encore aussi dafa mel ni tamit coow li nga ci bëgg. waaw coow lii xam nga làmb ak coow ñoo ànd. Mm-hmm. mais li may wax chaque jour rek mooy ñu jiital fair play ba pare. Mm-hmm. parce que làmb ak coow làmb coow bu amul làmb ji du mën a neex. Mm-hmm. parce que ñoom ñaan ñi boo xoolee kenn ku ci nekk yaa gën a bëgg sa moroom combat bi. kii nee na ko da maa may sens. ki ne ko moom gars yi ñoo tax mu jël combat bi. dañuy ñaan yàlla ñu bëri ko si jàmm. man loolu laay woote ba pare ñu bëre combat bi si jàmm parce que combat bii rek mat na grand combat bi ma indi. Mhm. yow ñaari grand combat voilà ñaari grand la xëy na dafa nekk combat boo xam te ne moom la njëkk régulariser ba jël ci dal waaye combat bi rek mën na nekk grand combat mais mhm. comme dañ ci dooleeku muy ñaar dañ leen di ñaan ñoom ñaan ñëpp ñu ni ñu ni ñu signaturé ci keroog bi nga leen invité wasaare. Mhm. ak ni ñu waxee fii tey. ñu ñu ñu ñu jëfee loolu ci jouru làmb ji mobiliser seen i supporters teg leen ci fair play ñu bëri ci jàmm ku yàlla may may ndam nga xam ni yàlla yow na may ndam. Mm-hmm. loolu daal laa defe naa ne nag defe naa ne dooyam ci biir ndax gis naa ci yenn xale yoo xamante nii yaa ngi leen waaj di leen duggoo ci bés bi lan nga naa ci bés boobu. waaw bés bi comme li ñuy wax rek ñun ay promoteur lañ. Mm-hmm. xëy na mënoon nañu am opté di bëre comme ñëpp mais dañoo opté nekk promoteur. tey bu ñu gisee ay ñaari xale naataango yu bëggante. Mm-hmm. mënuñu lu boole leen pour ñu bëree. combat bi tey boo xoolee waxuma sax combat am mooy Zem Kane ak Lat Dior mais am na yeneen combat yoo xam ni mi ngi ci biir yi nga xam te ni ñu ngi koy monté daanaka sotti na ba pare mais combat boo ci jël rek dañ naan bii moo dàq bële parce que ñoom ñaar ñii seen taxawaay fii tey yaakaar naa ne fii ci suba CNG ñu bari dañ toogoon di ko xaar xëy na heure bi moo moo tardement heure bi moo tax mu demee noonu am na yeneen combat yoo xam te ngi fii kon loolu luñ ko def loolu kenn ku ci nekk rek nga xam ni seen frère daal Ouzin Production moo ñëw pour bégal leen fii la 16 indil leen fi 100 pour cent làmb 100 pour cent ambiance 100 pour cent culture. gis ngeen mbokk yi loolu la Ouzin Production def ma bàyyi leen ñoom ñaa ñu tàggatoo ak lan ngeen wax Ouzin ñu tàggatoo benn yoon. waaw di féliciter Ouzin rek di ko wax li mu def ni yombul. parce que moom mun naa ni moo ñu mag mais mun naan jeune la sax bu taxawal lii tamit quoi. combat bi di ci woo waa parcelle ñëpp mobilisation bi di woo nday tuuti. Hmm. maa ngi koy woo ci combat bi bu baax a baax a baax Ndiaw Pa Ousmane Dieng gars yi damaa bëgg ci combat bi ñu may ñu jëndal ma ay bolok sama maman Fati maa ngi koy woo bu baax ci combat bi. Mhm. di woo Ndeye Tuuti Ibulaay maa ngi koy woo bu baax baax a baax di woo Papa Sow Modou Lo ñoom ñëpp ñu jàpp ci combat bi. parce que dama mobilisation man moom bu ma jógee parcelle bi ñëppay jóg. Mhm. waaw di ci sama waa ko ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp maa ngi leen ciy woo mag ndaw xale bàyyiwuma kenn di leen wax am nañ bis bés bu ñu ñor nag. bis boo xam ne bu ma mhm. intéressé bu ma ñor te bu bis le 17 juillet incha allah dinaa wan ne bis bi daf maa ñor. le 16 juillet incha allah dinaa wan bis bi bis bi damaa ñor. lan ngay wax Daouda kàddu bu mujj. waaw li ma koy wax mooy maanaam lamb mbër la rek mu entraîné comme man ñëw incha allah jëflante suñu borom defal ma ndam. waaw loolu laa bëgg man lii nii bëgguma ko dama bëgg bu simmee ñu ne Daouda tey lay rey Mbàkke man leer na ma Daouda bu mu simmee ko ñu simmee ko dañ naan càmm. Ah, billaahi gisal ni daawda de daawda bu sumee ko baax na waaw baax na Ouzin lu ci kanam yow le 16 yàggatul mhm. après tabaski la euh, daawda yu mujj waaw di siyaar ñëpp rek di siyaar jàmbaar ji nga xamante ne suñu grand la te bëgguñu seetaan benn yoon xam ne si làmb la ñuy yëngu mu ñëw pour kàttanal ndaw yi kon tey dañ koy ñaanal yàlla mu dem ba di fi tëgg ay combat yu mag a mag ay événement yoo xamante ni événement yu ëpp dayo sax yu fi nit mës a def di ko ñaanal jàmm di woon ak waa Lamsaar waa jàmm gën si Kamba Fass Mbao sama kër yaay maa leen woo bu baax a baax di woo Mor Sarr président maa ngi koy woo Ndiogu Mbaba ñoom ñëpp na ñëw jàpp si làmb ji sama tondo aaya na si ñëw taxaw bu baax a baax waaw làmb la comme yeneen làmb yi rek mais man jàpp naa ne méttiwul mafia bi waaru xuban nag maa leen sant bu baax a baax di leen gërëm bu baax xam naa ni yéen a gisi ceer sama doom day rouge maa ngi bu baax a baax a baax ñoom ceer défoncé ñoom ñëpp maa sant di sant ñoom xaadar di sant tarkindaay nag ñëpp kaw ba suuf baa ma kenn sa mag fëgëra nag maçon spécial moom kooku santam dama koy ber nëré di ko ñaanal yàlla suñu borom fay ko xolam yokk xéwal gi yokk teraange parce que nitu kese la lu mu am bokk na ko jaamu yàlla kon dañuy ñaan a teral ko te yàlla na ko suñu borom def yow nag sant nañ la bu baax a baax a baax gërëm la tamit bu baax a baax a baax parce que ba nga jàppee ba tey daw arrière te tey nga gën mën a jàppale te da ngaa jël sa temps yëpp kon yàlla suñ borom kàttanal ba li nga bëgg ci xale yàlla suñu borom defaral la ko sëñ Fall. am loo daf saa Touba. Mm-hmm. sama xarit sama lépp maa ngi koy woo ci combat bi. Mm-hmm. Cheikh Bamba général sama papa sama lépp maa ngi koy woo ci combat bi sëñ Mbaye suma sëriñ Baye Jili Mbacke borom léegi léegi maa ngi koy sant bu baax. di sant waaw di sant Mama Diène borom Fatick borom Ñaawur borom Bigol maa ngi lay sant bu baax di la gërëm di la wax waaw lamb jaa ngi nii sa lamb la waaw wasalaam. Ouzin waaw kàddu yu mujj di la sant yow Ouzin sama turandoo vraiment ci démarche yi nga def ba combat bi taxaw maa nga la koy wax keroog naan la bu doon bu ma amoon bu ma lu ma doon xool yow laay parrainé combat bi ndax coono yi ñu ci daj di sant Assise di sant ki nga xamante ne mooy fëgg la parce que vraiment kii wax na ko sànq def na ci làmb lu ne def na fi lu nekk teewul bi mu demee tamit mu ngi jëlaat alalam di jàppale ay frères am vraiment ñu ngi koy sant bu baax ci ni mu def ba combat bi taxaw di remercier waa CNG de lutte di ko di si jiital Bira Sène ak équipe am yëpp di remercier sama staff di remercier képp koo xam te ne yaa ngi ci Ouzin Production rawatina ki nga xamante ni sama jigéen fu ma nekk wax muy Néné Fatoumata Tall ministre de la jeunesse di remercier sama grand frère ñu koy wax Moustapha Mbeng président union régionale mutuelle de santé Dakar di lancer benn appel nag ci li nga xamante ni mooy mbër dama maa ngi koy wax chaque jour bëri nañ dem jënd carte CMI boo feebaree faju ci njëglu yomb feebar fu ne nee dab nit blessure fu ne nee dal mbër tey da ngay entraîné sax am blessure tey nga am carte CMI mu mu la à quatre-vingt pour cent te li carte bi jarul lulul mille francs ak trois mille cinq cent par an mbër mu ci nekk war nga ko mën a am chaque jour bu may tëgg làmb dinaa ñëw fii wax ko ma ne gars yi nañ jënd carte CMI parce que dama am fi am benn mbër mu bëre bërki dem blessé mhm. billaay bi ma indee ordonnance yi dama ko yërëm sax booy bi dekkoon booy boo ña booy ñaambur bu nekk kële école de lutte xaw ma dut Bakassar hmm. xam nga tey mu nekk loo xamante ni nekk na lu moom métti parce que kenn ñaanu yàlla blessure mais nga nga ñu fay la combat boo xam matul dara daanaka mu say ordonnance triplé loolu dafa métti te loolu xëy na boo amoon carte bi maanaam loolu yëpp du ko ci fekk hmm. boo amee ordonnance bu cent mille vingt mille franc nga ciy joxe état bi jël quatre vingt mille yi loolu na ci mbër yëpp bàyyi xel maa ngi lancé appel ñëpp. muy euh, ni nga xam te ne mooy Mbacke Faye sa waa écurie rek énergie nga wax ak ñoom ci loolu ki nga xam te ne mooy Fëgala kii euh, Daouda Sandis moom it mu wax ak ñu ñu jàppale mbër yi surtout tout tànk yi nga xam te ni ñi bëgg nañ làmb di ci di ci di ci bëree te seen cachet matul dara kon loolu maa ngi koy lancé vraiment ñëpp ba pare di wootewaat nit ñi ci violence gis nga lii rafetul xol xolal arène nationale bi hmm. lii nii kenn ku ci nekk say mbër war nga mën a wax ak ñoom ci lii nga bëre ba pare boo daanee ñu félicité la boo daan bu ñu la daanee ñu encouragé la ba beneen yoon ñun ñu ngi fii ñu ne ñoom ñoo far ñi dañuy bëri ñu dañuy tëgg te ci kàttanu yàlla ñii ku ci daan demee dama lay indi grand combat man maa ko ñoom ñaar ku ci daan dama lay indi grand combat te ki daanu dama ko indiwaat spécial kon loolu bu ñu jàppalantee rek yàlla mën na def nii lépp lu ñu bëgg a def ci làmb ji dina sotti incha allah di gërëm sama staff bu baax jërë ngeen jëf gis ngeen mbokk yi noonu demee woon ci diggante Mbacke Faye ak ki nga xamante ni mooy Daouda Sandwich Ouzin production moo fi jaar taxawal ko di leen wax na nañu waaj ndax defe naa ne le 16 moom defe naa ne li ku ma gaaw la di wax ak dina neex dina yëngu waaye fii le 16 dina neex dina yëngu di leen jox dig daje beneen yoon ak yeneen bër ak yeneen signature wala boo ko joxante dig daje ba le 16 incha allah rabbi jaa ngeen jëf waaw